wala ñu di ko euh, tudde naylul amaan yi tam gën ko miine ci daaliya suñu bindu fee wees woon borom téere bi mi ngi wax di melal ay mbokkam yoo xam ne euh, dafa leen a sopp lool muy wax na nga fa jaar nuyu leen ba demee ci mbokk yooyu am na kum ca doon nettali naan xale bu mel nangam xale bu mel nangam xale boobu lay wéy di ko nettali ñu ngi yemoon ci jaww dun لدى جود وطود سامخ حلما وعوض في الخطوب شمهدلي ñi ngi war a tàmbalee ba tey ci wéy di borom téere bi wéy di melal xale bi nan wa fatan lahu ignaau kahlin mashhada wa xijal masiqati fi xadaasati amradi mu ne wa fatan nekk na foofee cam cam buñ ko waxee mooy xale mooy nit daal mooy almaru laxoo boo xam ne ñeel na ko moom cam soose moom xale boobu ixna u këhlin doylu loog mbañum rus mashhadan ca waayu xare ba wa xija mashaqatin ak xelum mag fi xadaasati amradi ci toyëg ci ndawuk toyam ga mooy ndawuk waxambaane ga mu ne nekk na foofu ci nit ñooñu ma la doon wax koo xam ne aw waxambaane la waxambaane la woo xam ne waaye wecc na mag waaw maanaam ndaw la loo xam ne yuñ sol yaxi mag wala mag la mu ndaw la luñ sol yaxi mag waaw maanaam ndaw la waaye xelum mag la yor li mag yor cim xel lépp yor na ko ci buñ teewee ca xare ba buñ teewee ci mbir yu jafe ya buñ teewee ca nangam mu naan def leen nangam mu ñuy jox ay conseils yu am solo waaye xel mu am solo la yor mooy wa xijaa masiqatin xel mu mat la yor waaye ànd ak loolu lépp nag fi xadaasati amradin ci euh, ndaw gum ndawe comme noonu ma ko waxe mu ne woo fàttan nekk na fa askam lafo boo xam ne ñeel na ko irna u kahlin doylu loog mbañum rus mashhadan ca teewwaaye xare ba wa xijaama siqat ak xelum mag fi xadaasati amradin ca ndaw toyam ga toyam buñ ko waxee mooy waxambaane woo xam ne saxagul sikkim euh, euh, nga xam ne àggugul ci mag mu ne waqfun ku ñu taxaw loola alayhi ci moom nawaadirun ay xoolukaay mooy ay nagi bët wa masaamiun ak ay làmmiñ wa masaamiun ak ak i dégguwaay wa mooy ay nopp lazanan ngir ga làmmiñu walaysin kem ak gar la wala nga ne kem gaynde la muharradin guddi guñ merloo fi liqaa ca daja xare ba mu ne ndaw loolu day ku ko romb rek il faut nga taxaw xoolaat ko xool ko settantal ko xoolaat ko waaw maanaam eh, maanaam mënee su koo xool benn yoon rek daal di jàll il faut nga taxaw xoolaat ko waaye itam saa tàmbalee di wax ñëpp a koy may nopp di ko diglu maanaam jëmm ji rafet na waaye làmmiñ wi itam rafet na neex na waaye nag ànd ak loolu lépp nag nekkul am yambar nag de buñ demee ba dara desul lu taxaw dëggal sa bopp boo ko merloo nag dafay mel ne gaynde waaw moo tax mu ne waqfun Euh, ku ñu taxawal la alayhi ci moom nawazirun ay nagi bët mooy ay bët rek maanaam ku ko xool da ko xoolaat wa masaamiun ak i déggwaay ay la ay nopp lan moo waral ñu taxaw di ko diglu mooy law neen ngir ga làmmiñu maanaam fasaaxa gi nga xam ne dafa nekk ci moom waaye nag dafa mel ne ak gar mooy gaynde ci boo ko merloo noonu muy mete mu ne euh, borom téere bi di way ne ginnaaw wax naa la sama mbokk yi noonu ñu mel ne ku mel nii ak ku mel nii ñoo fa nekk ñu jar jooy lañ nag boo demee ba taxaw ci béréb boobee fàttaliku la fa xew ak la fa daa xew ak léegi ni ko yàlla binde léegi moo tax ma ne wa afid na nga bëbbal mooy sotti ndox mu bari noonu muy duuse di génn ci la baatu fayadaan génn inondation ma na nga bëbbal xuroobat dam'i ngës yaa moom rongoña wala nga ne ngësi rongoñ ngës buñ ko waxee mooy baag yu mag xam nga rongoñ amuti baag <clears throat> rongoñ amuti baag waaye dafa jubloo nuroole rongoñ yu bari ya nga fay jooy yu bari ya nga fay jooy mu nuróole mu nuróole koog ku yor baagum ndox bu réer di sotti am ndox noonu muy bare maanaam lépp jubluwaay bi lim ci jublu mooy na nga fa jooy jooy yu metti rek la ci jublu moo tax ma ne wa afid na nga bëbbal xurubat ba ngës yaa moom rongoña fi arasaatiha ci seeni déngaleer déngaleer buñ ko waxee mooy espace bu yaatu bu vide boo xam ne dara nekk fa mu ñu wax déngaleer mu ne boo fa demee ci ëtt ba déngaleer muy ëtt ya fa jooy jooy méttee métti wastan ji dan ta nga sàkkoo tabluloo mooy ta nga dimbani ko xural xama imi way weexi niir ya tun jat ko ndéef na dimbali mu ne jooy yi sax boo demee ba leer na ne yow lottu nga ci jooy yi mënoo jooy jooy yu matale na nga sàkku ci taw yi ak niir yi ak yu demee noonu ñu dimbale la ca taw ba waaw niir ko defee mu ne boo demee ba foofu ci béréb booba daal na nga fa jooy bu dee li ngay jooy mënoo koo jooy ah na nga sàkku ci niir euh, yi ñu dimbale la ca taw ba ngir nga mën faa jooy mu teg na fa laalla abrata saatin yushfa biha irbaabu wajdin fil janaani fil janaani mughalladi mu ne fa laalla abarata saatin baraana rongoñu wenn waxtu rek yusfa dees na saafara bihaa ca rongoñ go wala nga ne bihaa ci waxtu woowee irbaabu wajdin borom wala saxuk njàqare muy xalladin judi juñ béelal fil janaani ci xol mu ne na fa jooy ndax mën na am nit ki amu naqar bu jooyee rek naqar wa daal tàggalikoog moom ndax baraana jooy yoo xam ne bu ko nit ki jooyee rek ah, aw metti itam daal deñ naka noon noonu nga xam ne nit ki am na wax joo xam ne li fekk waxagu ko aw naqaram du deñ naka noonu la jooy am na jooy yoo xam ne nit ki bu amee lu ko metti bu jooyee rek ba xolam sedd rek eh, su ko defee njàqaram daal de mu ne ko na fa jooy mën naa am genn jooy ga nga fay jooy genn rongoñ ga nga fay génn rek mën na am musaafara sa njàqare li nga xam ne da nga koo amoon ci teqalikoo gi nga xam ne teqalikoo ka nit ñi ak nit bi béréb bi nga xam ne yàlla bind na ko béréb bi ak ni melleeg moo tax mu ne fala àlla abra taatin amaana rongoñu wenn waxtu rek yushfa des na saafara biha ci moom irbaab wajjin saxum njàqare mu xàlle din jili juñ béelal fil janaani ci xol mu ne summa topp isqiha na nga màndal béréb boobee suuf soosee leen nandal mandal muy arrosé leen fala taalama asqaytaha yàggaana nga nandal leen badalal xayaa lu wecci ndoxum taw bi mahinin aynika ci sa ndoxum bët tas adi muy aji tooy mu ne nanga mandal béréb yooyee ci sa ndoxum bët nga weccee ko ndoxum taw bu jëkk ndoxum taw moo ko daa arrosé muy tooy waaye nag nang ko weccee ndoxum taw moomee léegi arrosé ko wala euh, taw euh, euh, suuxate ko sa ndoxum bët waaw mu wecc ndoxum bët mu tooy maanaa daal euh, euh, euh, bu jëkk danga leen daan ñaanal suñu borom nandal leen léegi ñaan googu nga xam danga daan ñaan suñu borom nandal leen ndoxum taw nag léegi dama bëgg nga def ko tad maanaam nga def ko ci sa ndoxum bët léegi nga dem jooy fa ci béréb yooye foofu nag lay tàmbalee nag di melal béréb ba ak la nga xam ne daana ko fa dund ca béréb boobe wax na la nit ñi fa nekkoon ak ñu demee noonu mu daal di ñëw nag ci béréb ba moom jamono jam fa daa dund ak lam fa daa yëg ci ay neex-neex moo tax mu ne watanun ahidtu biha shabibata wassiba ilfayni laysa axuhuma bi mu nakkadi mu ne watanun ab dal la wala nga ne ab dëkk la ab béréb la boo xam ne ahidtu miine woon naa bihi ci béréb boobe ashabibata waxambaane ga wax ak ndaw ga il fay ni mbir mu muy ñuy ñaari xarit moom asabibatu ak asiba nga xam ne lay sa axuuxuma dee seen mbokk ma ñoom ñaar bi mu nakkadin muy lu ñu ñàkkal muur mu ngi melal béréb boobe nga xam ne ci la juddoo paase fa ak ndawam yépp ak waxambaanem ak ndawam mu ne lu neex a neex a neex la ah, mu ne daal ñàkk maanaam eh, eh, seen mbokk ma nekkut loo xam ne lu ñu ñàkkal muur la mooy seen xarit ba mu tàmbali nag di wéy dund yam daa dund ca béréb boobee mu ne wa fi aswaabi aysin baasiqin azabatuhu aniqil aniq aniqil muhayya mu ne wa di diri tama diri mooy diri naa diri mooy loo xam ne da koy ñoddi muy dem comme ku sol yére yu gudd noonu muy diri ko Euh, mu ne warafaltu diri naa fi aswaabi aysin ci yëri dund baasixin yu aji jot wala nga ne yu aji gudd xasabaatuhoo mbiccam ya ani xil mu xayyaa aji xéewju ay xar kanam arxadin bi aji naat mu ne béréb booba daal bu doon dundu ay yére la ma ne yére yu jot sëkk laa ca daal sol maanaam kon dund gu mat sëkk laa fa daal dund dund moo fa woon dund wereyaan waaye dama fa daal dund dund goo xam ne li dund laaj moom laa fa daal dund waaye kon xam ne ay yére na muy jote noonu la dafa daal dunde yére yoo xam ne mbicc yu jot a la am waaye yére yoo xam ne aniqi bi aji yéeme wala nga ne bi aji uh, rafet bi aji yéeme almuhayya uh, xar kanam arxadin bi aji naat yooyu noonu laa fa daal dunde uh, muy nettali ba tey di wéy rek moom borom téere bi di wax ne waxataftu tama wat min sahri sururi cëfaloori mbégte nawaadiran yuy way nëtax waxasartu tama gësëm gësam mooy loo xam da nga ko jàpp di ko yëngal comme ku jàpp ci car di ko yëngal noonu minhu ca foofee bil xuduuni ca bàngaas ya al muyyadi ya aji jaayu mu ne watt na bu doon mbégte ay fleur la mu ne kon watt naa ca fleur ca tóor tóor ya waaw maanaam mbégte bu doon fleur la watt naa ca bu doon mbégte ay bànqaas la ma ne gësam naa ko kon mi ngi melal li nga xam ne amoon na ko ci mbégte ak i bànneex ca bérébam boobee bu doon ay kom ni ma ko waxee ay fleur dagg naa ca bu doon ay ay ay ay bànqaas itam gësam naa ca wata ma ne waxatufta tama watt euh, min sahari sururi ci fleur yi mbégte nawaadir yi way nëtax way naat wa xasartu tama gësam minhu ca bérëb boobe bil xuzuni ca bàngaas ya al muyyadi aji jaayu mu ne ayaama kuntu raxiya baalin baalin fi zara xadibin alayya muwassalin wa muwassadi mu ne ayaama kuntu bis ya nga xamee ne nekk naa raxiya baalin di aji féex ji am xel bu ñu waxee nit ku féexum xel mooy ko xam dara tiitalu la waaw maanaam koo xam ne sam xel yow li gaal gi riir daal nga xam ne ragaloo lu lay ti lu ak ñàkk ragaloo feebar ragaloo dara mu ñu wax raxiyal baal waaw moo tax mu ne ay yaama kuntu nga xam jamono yi nga xam ne nekk naa raxiya baalin aji féex ji am xel fi zara xadibin ci ëttub aji yar xalayya ci man mu wassanin muy aji ngëmbeen ngëmbeenal ma mooy koo xam daf lay tëral di la tàpp tàppal ngir bëgg nga nelaw noonu ngay amee xale di ko def wa mu wasfadin tey aji ngeganaayal ma mu ne jamono jooju nga xam ne maa ngi dund ca béréb boobee ca mbégte moomee damaa nekkoon ku fee xel faarixun minal humum am yenn njàqar yoo xam ne mi ngi nekk ci man am yenn soxla yoo xam ne yi ngi nekk ci man ndax booba damaa nekkoon ci ëttub koo xam ne moom laa défendre lépp loo xam ne nar naa ñëw dal ci sama kaw moom mooy taxaw défendre ko mooy tax fii zara xadibin ci ëttub aji yar nga xam ne moomay aar di ma défendre bu nelaw jotee mu tëral ma tap tapal ma ma nelaw waaye wutal ma ngeganaay di ma eh, leen defee mu ne alxoo fooye bi ahdaasi samaani ci xew-xewi jamono yi muraaxi mbir mu muy aji toroxal li unu fi xaa ñeel seeni bakkan abasal walidi comme kem faw xale al mustadi way aji wërwërloo wala nga ne ngay aji bay aji ruur ndomba mu ne jamono yooyu sax bu fekkonte ne xew-xewi jamono yi waaw xew-xewi jamono yi li muy daal tiit le lépp ak li muy naqar naqar lépp dama dafa mujj dafa mel ne ab fawkaay laa ko defoon waaw tiis yi tiis yi xew maanaam faalewu ma kon dafa mujj ab fawkaay laa ko defoon waaw nga xam ne gone sax léeg mën naa fekk koy lor mu di ko fooye ndax xamut xamut ngaañ la xamut lor ji mooy xew-xewi jamono noonu laa ko daa def dama leen daa foye di leen teg lu leen naqari te duñ te duñ ma mënal dara ñoom xew moo tax ma ne muraaxi man li uno fiha comme noonu nga xam ne xale noonu lay fooye fowum wërwërloo wala ñu fowum ruur ndomba nga xam ne dañuy def benn encercle xale yi dañuy def encercle maanaam dañuy def benn wëreelu euh, ñoom xale yëpp toog wër wër benn rond euh, euh, ñu toog sukk léegi am koo xam ne nag mooy wut lu muy ruur ci ginnaaw benn ab yar lay doon wala ak buum léegi day dox di wër kum dikk ba ruur ko ci sa ginnaaw amul gees nag boobaa ñëpp da ngay sëgg kenn du ko gis itam ba ne ko mi ngi koy ruur ci sa ginnaaw dañ koy su mu doxe ba wër ba fekk benn waay mu suul ko ci ginnaaw bu ko suulee ci ginnaawam dam wër wër wër wër ba agsiwaat fi nga ko suuloon te yow yëgoo ko jógoo bu agsee day jël yar bi di la ko dóor xam nga xale yi def noonu ak foom garag yi demee noonu yooyu dafay mujj maanaam dafa ko ku bayiwul xel dara mooy def loolu moo tax mu ne daanaa foye xew-xewi jamono yi alxoo daanaa foye li ahdaasi samaani ci xew-xewi jamono yi muraaximan mbir mu muy aji toroxal li una fexe ñeel seeni bakkan abasal walidi kempo xale al mustadi muy aji ruur ndomba nga xam ne man damaa nekkoon murxal xinaani may ku yolomal ji ab gog gog buñ ko waxee mooy laab mooy buum gi nga xam ne da nga koo takke di ko ko kóndire moo ñu inaan mooy gog wala di ko wax gog nga xam ne yaruudu dana tàggat kulla lubaanatin bépp aajo nga xam ne aajo bu mu mënti doon dafa mel ne dama koy tàggat bam nooy ba di dox ci samay ndigal waaw ah, da xam ne aajo bu ma am rek dafa mel ne ni ma ko bëggee noonu lay amee nga xam ne dafa mel ne aajo bi daal dama koo tàggat ah, marixan mbir muy aji sigiré sigiré mooy kontaan di cëpp cëppi moom la ñuy wax sigiré ah, bihaa ca aajo ya maraxal fu lu wi comme sigiré mol mol buñ ko waxee mooy fas wu ndaw almigdari bi aji yëy laab waaw fa mool woo xam ne mi ngi yëy maanaam di kaf di cëpp cëpp maanaam fasu sonn gu daal bu dee fas bu dee cumbur mbaam lum man di doon noonu mu koy tàggate sexal ko laab noonu muy cëpp cëpp di gas ak tëb di wane ak ndawam di wane kàttanam noonu xale di def noonu mol di def man noonu laa daa def daa cëpp cëpp léeg-léeg gis loolu day feeñ ci gone yi sax da gis gone goo xam ne cawarte gaag yooyu da ngay gis muy bëri dàqe fii cëpp cëpp noonu laa daa moo tax mën a maraxal xinaan may kuñ yolamal ji goog amul lu ma luñ may baaree lu ma neex def boobaa lu ma neex def amul luñ naan ma defal nangam bàyyil nangam déedéet amul ku may jàjj di ma digal di ma tere dañ maa bàyyi woon rek ci la ma neex xam ne aajo yi yarudu dana tàggat kulla lubaanatin bépp aajo aajo yi daal bu fekkoon lu ñuy tàggat la dafa mel ne man maa ko tàggat ba mu nooy di ci samay waaw nga xam ne xaj boo xam ne da koo tàggat ba boo loo ko wax mu def ko noonu la aajo meloon ci man. nga xam ne maraxal mbir muy aji sigiri ci aajo yi maraxal fulu yu comme sigiri ak mol al mughdadi bi aji yey laab. nga xam ne laa axtasi su ko defee ñu àggal ñaari bëri laa axtasi du ma ragal sufran borom wex wala naaben déet borom sell. wala as ji du ma tiit itam li bay ni moo xawirin ci aji dugg aw xuur aw mun jitam wala ay yéeg aw tund nga xam ne dama mujjoon awuma dara lu may ragal waaw du ma ragal ku am wex di fàdde ragaluma lu am sell di matte ragaluma luy dugg aw xuur xuur waxoon naa le ko mooy euh, ab descente wala koo xam dafa yéeg tund maanaam ragaluma woon dara daal wa dëxru te jamono ji salmon aji maar loola ak man bu jamono ji jàmmoona ak man dafa mel ne daal jamono bu rekkoon dañuy wax xëccoo na ak man ba xam ne leer na ne mënalatuma dara nag mu ne kaay ñu signé accord a paix waaw wasahu dawal jamono ji salmun aji maar loola ak man wal xutuubu ta mbamb yi mooy al umurul izaam xawaafiloon way sàggan lañ ci man waaw mbir yu rëy yi dafa mel ne dañ may teggi wal xaysu te dund gi xabdun aji nëtëx la naat na lool wal amaani te mébét yi xufat yi ñooy samay surga waaw li ma mébét rek dafa mel ne ci samay waaw la ñuy dem waaw dund gi daal jamono yooyu may dund neexoon na amul dara lu may gàllankoor su ko defee kon loolu mooy suñu dar suñu am foofu yéen a jëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.